kii boobu moo fëtte. kenn wax ko dëgg fee nekk dañuy torturé pour lan lépp a kumba. man sax dama metti du loolu man li ma metti mooy sama àdduna nekk ndaw di nekk ci bànneex di péex di am lu ma neex di doxee nu ma neex di waxee nu ma neex dem ba nekk mag bëgg a dugg ci musiba. ndaw si yan may àdduna rek. man nga xam naa ko damay woo gars yi Ousmane Ndiaye woo sama xarit la ku baax la woo Fallou Tall ak Ousmane ak Ron Ndoye ak Junior ak Daouda Camara. ak waaye yéen lan ngeen di toog Lama len don doon dafa pare. waaw. dama len fi amul tok Yen Kumba sek yak na len de man duma Kumba sek la fa amone ak li fi am ni ça fait deux ta a partir d'aujourd'hui li ngeen sol ni la bëgg mu dañ ba set wécc hmm? sen dara yi ngeen melni ku yegul tàngaay yaw mom nga melni ni ku bokk mbot da nga bëgg douce len ngeen tang ba set xéñ neex gor day sol short, ak tiarax tangay bi ngeen wor ba ngone xeeñ xunn kër gi ba ma fi ñëwee ba léegi gisuma dara lu fi xeeñ lu neex damaa bëgg ngeen jug dem sangu ji ba set xeeñ neex loolu laa bëgg man duma ku ma sekk de te li ma bëgg moo fi am bu fi liggéey amul aussi ngeen wër leneen lu ngeen mën a def mais toog du am fii falaayam nag hmm? dama ne amul un jug leen ngeen dem defi li ma wax su ngeen paree ngeen woo ma ne ma pare naa ma xool leneen lu ma def ak mbugal dëgg ngi soog a ñëw nag. ñun de ñu ngi ñu ngi mel ni ne si jeexit jeexit na ma. waaw waaw waaye est-ce que yaakaaroo na ba ni suñu ko li ñu sangoo li ñu xeeñ loolu neex kii kii boo def ndànk ab cagala de. xam yow mën nañoo jëm xam nga xam nga merci yow. Hmm. nii day suñu kaw. xam nga déggoo gi mu la wax. wax nañ jóg léegi léegi léegi futteeku. sangu sangu ba seet xeeñ lu neex. waaw neen sax bu ñu toog dara nañ bale miir yeeg fekk ko ci biir surtout man sama douche yi ni may douche yi may dugg naa raxas buus waaw xam nga nag xam nga nag xam nga nag euh, ñoo ko bàyyi bu fekkee ni sa biir baaxul day am togg yox xam ko toggee ci kër bu ko lekkati jar na nga lekk pat sax mu seere la. xam nga li yow yow ma ko nañ jug dégg lu mu la wax nee na bu cinq lañu may nañ jug daaw def la ñuy def ba ba mu ñëw dóor kii de kii dañuy dóor de. jugal jugal ñu dem baax na. WWE next sa Hong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 président euh, dégg nga président léegi. président. ah présidente wala daat. présidente daan wala daan. bàyyi sama bàyyi sama yére. président. sant nañ de. sant ngeen ba pare nii. ba pare ngeen a nii ba pare. waaw yéen ban paa ngeen mini paa wala grand paa. lu jox waaw da ngeen a génnul xeetu bolog bi ba léegi de man dama ni ngeen def pàcc t-shirt ak carax dafa tàng te góor dëgg. bala mu maa neex boo xeeñee lu neex da def pàcc. loolu dëgg la xam amuñu ñun moom dañoo ne si weerum koor. te fi ñu toll nii dañoo ne si lan mu xadar bi. d'ailleurs sax ki jàng fa lañ jëm nii. waaye ki jàngkat bi jàngkat bi mooy xam nga demoon nañ ci ci ci euh, góor a sekk waaye doom ji lañ fa fekk. ñu fa bëgg a demaat waaye moom baaba kër Dieye moo ni mooy ñëw. Mhm. waaw Babacar Dieye. Babacar Dieye moo ñëw waaw waaw. kooku mooy xaritu sëñ soo si. Ah, waaw Babacar Dieye waaw. fu lañ jëm ni kon ñi dem dañu wax dégg li ngeen di wax yépp wax moko ko li ma wax lenn la bu leen fa am 10 minutes man rek ma nekk ci kër gi tawuma kenn ku ma wétali ah. wa dama bëgg ngeen dem 10 minutes la leen may su ko passé man mi ma leen di jël ci lool la wax kër gi man kessé ma fi nekk tawuma ku ma wétali dem leen ñëwaat légui lool la wax wut mi lan moo naa bëgg ñu lay wétali yow dama ne nga dem sa yoon. waaw damay saf nii ak say foq yi mënoo dem ta ñëw. ñii ah. ni ma leen cëppee. Hmm. ba sekk yeex na maa jox kër gi. ñii maa leen di lijjanti ba ñu ni cocc maa leen gën a bàndigal leen woon defal leen ma pàcc changé leen ma gàddaaroo bu ñu dem indil ma même famille ñii duñu changé waaye maay ki leen changé. pro bio naturel mbokk yi seen jaaxle jeex ndax pro bio naturel daf leen indil ñaar ci ay de bio 100 naturel ñu defaree ko ci bi wax pro bio naturel daf leen indil pro bio naturel alde muy produit bi nga xamantane daf lay renforcer carrément ci walu sey tagalé la ak ay jafé jafé new katan ay mbiri télé nak mom dang koy dégg rek pro naturel simpi bi nak bi nak moy topato seen yaram ci walu yax manam, bolem lu ngeen amone ci ay jafé jafé ci